الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cosaanu Fayda bi Kossy TV cosaanu Fayda bi suñ baay wax na ne tatarruf bi am lu bëri moo ko yàq ci àddina bi waaye rawatina ci doomi sëriñ si tatarruf bi foofu la nekk ndax sa baay am xam-xam sa maam am xam-xam sa maamaati maam am xam-xam yow nga ñëw rek doyloo ibnu fulaan li yàqu yëpp fi woo ko yàq

maam Alaaji bi nga xamee ne tubaab yi xeex nañoo moom xam nañ ne mënaluñ ko dara liñ bëggoon mooy ñu récupérer ay doomam mu bañ ñaan ci yàlla ne lépp lu bokk ci moom su njëlbeenoo nasaraan yàlla bu mam am tawfiq booba li tax mooy ne ta tubaab yi xam nañ ne maam Alaaji mii mënaluñ ko dara te li nekk ci moom nañ fexe ba bu mu ko transféré ci doomam yi man bi ma déggee suma baay bàyyi rahmatullahi li taxoon mu ñàkk ñoo dugal ci tubaab yi eh, école tubaab yi bi ma demee Imaaraat ci laa xam ne euh, euh, gis-gisi Cheikh Zayed mooy gis-gisi maamalaaji Cheikh Zayed bi bi bi tubaab yi xeexeek moom mënaluñ ko dara waaye moom maamalaaji ko ëpp sens dañoo récupérer doom mi dem yar leen ñii ñi ngi jàngee Angleterre ñii ñi ngi jàngee France ñii ñi ngi jàngee Amérique biñ ñëwee ci premier janvier bi ci lañ daganal góor jigéen ci premier janvier bi ci lañ wax ne lekk ci weeru koor dara newu ci ci premier janvier bi ci lañ wax ne yaa ngi dégg mën ngaa dëkk ak jigéen joo xam ne yaa ngi dégg takkoo ko ci premier janvier bi ci lañ wax ne lekk yàpp mbaam xuux dagan na yu bëree bëree bëree bëree yoo xam ne seen baay daana ko bañ waaye bi doom yi ñëwee nangu nañ ko lu tax tataruf la bagage yi seen bàyyi yoroon moom lañ yorut te lii may gis muy xeeñ te bàyyi daana ko wax xissa foros euh, xurasaana bi daana ko nettali mu mel ni ñoom lay wax waaye ñun ñii la doon wax te léegi bëri na ci doomi sëriñ si ku ci wax rek ne léegi gars yi dootuñ taalibe fekk yow yaa dootul sëriñ sa bàyyi xam-xam lañ ko toppee woon moo tax Baye Bass bi muy wax yëpp maa ngi wax ne Cheikh Ibrahima yàlla na ko yàlla fay moo baax moo baax ci mbokk moo baax ci doy mbokkam moom mii wax nii wax jii mu yulli fii yëpp bàyyee ko def ci moom gisut baayam bàyyee ko jàngal bàyyee ko yar bàyyee ko taxaw ba mu mel ni mu wax ba suy wax rek da nga xam ne kii lisaanul qudsi mooy wax ci làmmiñam moo tax ñoom tooñuñ kenn yal na leen yàlla fay dañuy dund ci xaalis te xaalis du gaaya wasila rek la te Baye dafa wax ne mbaax lu mu baax baax ku sa Baye baaxoon ci la gën a baax tey Ibrahima mii nga xam ne doomi Babacar la bi baayam di génne àddina mënul dara waaye am amu bu baax moo tax mu am fit te fondation su baaxee soo ñëwee teg ci rek day yomb mu nekk xale boo xam ne tin bu neex a digal la bu neexa dimbale la yaay dégg ndax dimbale ko moy dimbale bay daara ju nekk fi da nay wax ne bari na ay muassasat yu nekk ci dëkk bi liñ waroon ittiyo ittiyoo mooy fexe képp ku yore daara ci dëkk bi ñu gàddu la salaire képp koo xam ne yaa ngi am xam-xam mën a jàngale laxdariw ba Cheikh Khalil mën a jàngale ajurumi ba yaa ngi dégg alfiya mën a jàngale sanfariyu ba choraw sitta nañ fexe nit ñi ñee la nañ la outal nañ la outal kër nañ la outal salaire nañ la jàppandal ndax fi Medina Cheikh Ibrahima radiallahu anhu sama bay wax na ma bi koy bay di gamolo mom amul fanere at bay dafa gawa daf leena gawa jox responsabilité légui da ngay dem ba am juróom fukki at ñu na xale nga nga am juróom fukki at ñu na xale nga nga am juróom ben fukki at so toge ci kanam juróom ñetti fukki at ñu na xale nga motax su suñ bàyyi gaawut def mudaaraka lu bëri dana yàqu ndax da ngay fekk sa bàyyi newoon gàmmookat newoon jàngalekat newoon firikat alquran newoon kat yow yoroo ci benn bagage lii la doy rek mooy na doomi diw la te loolu am na ñeneen ñu koy accepté am na ñu ko accepté wut tëkkalem tooraf tey suñ bàyyi ji li bi muy wax yaa ngi dégg ku fi ñëw da nga ci gis sa bopp saaguwut kenn xasut kenn lim xam rek moom la wax ليونت بنكون يايدك يفي وسطي دو تطرف دو تشدد اعملوا من الاعمال ما لا تطيقون به فان الله لا يمل حتى تملوا يلا دو يقد موتاخ ا مناقب يم دفل شيخ ابراهيم باخنا تروب داخ جوتاي بي دو جوتاي خالص جوتاي القران لا موتاخ balaa ma cey tëj balaa ñu tëj ñaan gi maa ngi ñaan képp ku fi teew da nga génnee addiyee alquran ndax daara joo xam ne amut fay weer gën jaa bëri deux mille francs la te am na ñoo xam ne sax duñ ko joxe ndax ak kër soo ci nekkee di fay ndox di fay courant yaa ngi dégg yu bëree war la yaa ngi dégg di joxe dépasse te daara ji du daare yalwaan démb ci heure bi maa ngi tribunal ñaari yëf kenn ki samiyul walid la dafa joteeg om de tenue am moom wax ju tàng ñu téye ko keneen ki waa Touba ñaan la yaa ngi dégg ñu jël loo moo jaay ko loo xam ne ki ko jënd ki ko jaay moomu ko waaye la ma fa fekkee xadiya boo xam ne muy oustaz euh, Modou Ñaan sëñ daara Modou Ñaan daaraam ji benn xale boo xam ne dañ ko doon atte ndax dafa dóor xale bi bi mu ko dooree dóor yu métti yaa ngi dégg comme dóori daara rek léegi la dóor métti waaye démb méttiwutoon ci ñi xamoon alquran suñ bàyyi jot nañ lu nekk ñun ñi dañ leen ñu nekk yaa ngi dégg ah, ah, ñu di ko atte xale bi ay juróom-ñetti at juróom-ñeenti at ñu ngi ko taxawal taxawal sëriñ daara bi sëriñ daara bi wax xale bi di ko wéddi ne waxul dëgg daf maa daf maa en rek yaa ngi dégg di ma dóor daf ma bañ su ma mokkalee mu dóor ma su ma mu dóor ma ba mu gi ñu jàpp seen daara bi di ko xas kas yoo xam ne te baax rek lañ la sëñ daara bi bëggoon ci moom la ma ca xalaat nag mooy ne xale boobu dañ ko war a jël photo ko dugal ko ci mbooleem groupe bi whatsapp yi fu yaayam fu ko yaayam yóbbu ci daara yi rek nañ ko nañ ko tardu bañ koo jël ndax yaayam moo yóbbu xale bi moo yóbbu sëñ daare bi ci yoon ñu tëj ko buggoon ko ki yàlla dimbale na ko bañ bàyyi ko waaye ku mel noonu waaw waaw waaw ku mel noonu nit ñëpp dañ ko war a xam yaa ngi dégg di leen yaa ngi dégg fexe ba bum jàng ndax koo xam ne nga bëgg mu baax mbaax gi fitna na la cee fekk kooku da koy moytu kon sant yàlla wax ji wax ji wax ji wax ju fasala la te at yii mu am nii mënoon na am ngànt waaye dafay ta'yit yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima te Imam Assane bi mu ñëwee 2008 mbitéen dafa wax ne nit su baaxee képp ku bëgg lu baax danga ko bëgg waaye su fekkee ne mbaax fekk nekkul ci yow newut ci sa doom doo ko bëgg yow bëggoo lu baax sa bopp nga bëgg yaa ngi dégg kon kii ay maamam yaa ngi dégg bi ci gën a jege mooy Maam Ibra Fall bi muy ànd ak baay yaa ngi dégg booba dara amut dara amut ànd googu ci yàlla force ku ci bokk góorgóorlu yàlla dana la ci jox ak koo mën a doon nag yàlla du jox koo xam ne da ngaa yaafus mbooloo mii nga xam ne dara indiwu leen fi lu dul alquran yàlla rek moo leen fi indi nga toog waxtaan na leen ci seen dund ci yaa ngi dégg laal ci jigéen ñi laal ci ndaw ñi laal ci yaa ngi dégg xale yi lu uh, bunt bu nekk rek indi nga ci exemple boo xam ne ci eh, misaal mu kawe moo xam ne ku ci ku ci jugee rek da nga wax ne man mii kat su ma demee danaa defaraat sama toogaay rawatina ci jigéen ñi ajuma jële passé maa ngi jullee kër Ali Samba jumaa ju ma fa tabaxoon ajuma jot ajuma ju jot dama cay dem waaye eh, maa ngi doon waxtaan ci di félicité waa Cubbeen jumaa ji seen jumaa ji ma suñ doon joxe cadeau ci àll bi jumaa ji mooy jumaa ji gën a rafet mooy jumaa ji nga xam ne moo gën a taaru ci àll bi te doomi dëkk ba ak seen mbokk ci yàlla muy Cheikh Abdou Malick moom lañ jàppalante yaa ngi dégg ba jumaa ji am mel noonu mu mel te rëddaat nañ fa yeneen hôpital yoo xam ne ña nga cey góorgóorlu nit su lay jàppale imaam dafa waxoon ne nit su yéen waa Mbitteen lii Omar indi fii su ko yóbboon buntu këram danañ koo fekk su ko yóbboon buntu kër baayam danañ koo fekk su ko yenew indi ko ngeen jàppale ko dafa war ndax nit su lay jàppale soo ci jàppee dox ba day gën a gaaw waa ci benn moom seen ja seen seen seen jàpp nañ ci moo tax seen dox ba gaaw ma waa jumaa ja rafet lool Baye Bass mi moom mooy ki nga xam ne moom bokk na ci ñu ko ubbi waaye eh, li ma mulaaxada yi ma gis wax na léegi ci wàllu ne bàyyi sosewu dëkk bi fo waaye ñenn ci doomi sëriñ si ñooy njëkkee foy moo tax suñu aayee fo kenn du mën a fo kenn du mën a kenn du mën a ñàkk fo dama daan gis suma jamono bàyyi yaa ngi dégg am na am na tëgg mu amoon ci kër diggante kër ndeexati jaw benn sabar gu fa amoon moom moo demoon tas ko laama laama mu ñu wax laama tëggal sama eh, tëggal tama gi yaa ngi dégg daanaka fa la keroog la yàq keroog la ko ñaan yàlla mag ñooñu yaa ngi dégg waaye léegi eh, eh, li nga wax léegi tubaab bi ñoo ñu yàq ñoo ñu yàq ci colin ñoo ñu yàq yaa ngi dégg ci ñàkk gëm liñ am ndax pays bi dañ ko war a xormaal waaye ki ko gën a war a xormaal mooy ki nga xam ne mooy cosaan li ndax su fekkee ne yow mi fi dëkk yow mi war a tere yëf yi yaa njëkkee fooy su keneen waxee ñu ne da ngaa néew da maa yeb rek waaye yëf yi ci am na fu mu njëkkee mu laa aade beneen bi ma gis mooy ne soo demee bu njëkk damay wax ne ku daan ut jabar léegi ci àll bi nga koy utee waaye léegi kuy ut jabar daanaka ñàkk dem ci àll bi moo gën dem ci àll bi ndax léegi-léegi ñi ngi def ci ceet dem ci ab dëkk àll ñu togg fukki mbanaay ceeb ak juróom juróom-ñetti mbanaay euh, laax ak ay michu ak ay nangam te ki koy def nit ñi ñooy dajale seen mooy cotiser jox ko amu ko néegam néegam bi mu ant bi mu yóbbu jabaram sax ci boppam yaa ngi dégg amul lal te danañ dajale lu tolloog deux millions trois millions jox ko waaye balaa bët a set duutu ci yoreti benn dërëm loolu lan la tatarruf boobu lan la yow li nga def mënoo ko nit ñi dañ la waroon a dimbale nga mën cee jéetale am ci capital moo tax su ceet gi jeexee rek nga indi fitna ndax lu feeñ ci ngaro mooy continuer ci ci sëy loolu baaxut doom ju jigéen ku ko yàlla jox mënoo koo jëriñoo sa doom mënu koo jëriñoo seetal ku ragal yàlla nga jox ko ko yaa ngi dégg ku mel ni borom pomba bi mu lekkee pom bi moomu laajte ba xam ki ko moom borom tool ba xam ne kuy moytundiku lekk loo moomut ku ko dénk sa doom dana la ko sàmbal loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo ndax tey képp koo xam ne daraja moo la bégloo woon tey jooyloonal politique bi rek passé war naa jàngatan ñu bëri ñu bëri defaraat seen toogaay xam ne yëfi yëfi yàlla la yàllaa ko moom xam na ba tey tamit pays bii kenn mënu koo yàq ndax Cheikh Ibrahima ci boppam moo ko aaral boppam suñ kilifa yi nañ leen sàmm nañ leen aar ñun doomi sëriñ si nga xam ne ñoo nekk ay doomi sëriñ nañ protéger suñ bàyyi ndax nit du am juróom-ñetti fukki at di man ci boppam dara ku am juróom-ñetti fukki at mënatoo ci sa bopp dara sey doom ñoo lay diriger toogal nga toog bul toog du toog yaa ngi dégg loolu la la leen yàlla mayoon démb tey lañ ko gën a aay waaye nag yàlla mooy def lu ko neex kon nañ góorgóorlu politique bi jàngat tubaab bi rek ñoo ci mën a jëriñu waaye ñun suñ politique mooy daawa bii nga xam ne ci maamalaaji la jógee ci buntab Cheikh Ibrahima ji lañ bokk nañ fexe ba nit ñi xam ko nañ fexe ba nit ñi bëgg ko nañ nangoo jàng nañ nekk ci suñ métier bàyyi su ëllëgee ku la gis dana la mën a wekk waaye tey nga feeñ ci anam boo xam ne feeñ ci télé yi ci barab boo xam ne ku la gis xeeb la su ëllëgee ñu gis la ci jàkk ji ngay ngay def leneen ñu ne kanaa kii duun ne moom lañ gisoon ci baar bi démb tey ñu gisu ko ci lii loolu baaxut ab sëriñ danga nga war a xam fi nga war a dem ak foo warta dem suñ bàyyi rahmatullahi alayhim liñ waroon a def yëpp def nañ ko kon nag buñ ñëw ba egsi si ñun ñu bëgg koo yàq suñ bàyyi bas ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu yàlla ndax lii su continuer dutuñ ci doo dara wax nga léegi ne fayda bii nga xam ne moom la Cheikh Tidiane ñaan su fekkoon ne mook moom ci doom mi la koy jox su fekkoon ne moo ko moom ci ci ci ci ci taali saxaabaa mi la koy def waaye moomu ko risaala la boo xam ne yàlla koy def fu ko neex Seydi Aliou Cissé radiyallahu anhu damay wax ne baay bi mu demee bay def wasiyam dafa wax ne sëñ Aliou maay sëriñam mooy sëriñi taalibe lu mu bokk ak Baye moom dara lu dul nangu rek te ku nangu nangu loo moomut bi nijaayam ñëwee ci dëkk bii ñu wax ko wax joo xam ne jaaxal na ko te démb nijaay moo doon moo doon yar jarbaat bokkut ak jamono léegi ndax jamono léegi ku ci yàlla mosuloo dara sa nijaay ngay njëkk a xeeb sa nijaay ngay njëkk a xeeb rawatina yaa ngi dégg ñu duwun ñoom najaayam moo ñëw seet si liñ li ñu wax dëgg la wala du dëgg bi mu ñëwee gis Seydi Ali bàyyi mu ne ngeen ñëw ñu jàng bàyyi mu ne ngeen ñëw ñu wasifa bàyyi mu ne ngeen ñëw ñu liggéey bàyyi mu ne ngeen ñëw ñu nangam lépp ku ci ne lim dégg yëpp gis na lii ku ci nekk sax ci rek soo liggéey danga nga doo dara bi mu demee ba wallu ñibam jot mu ñibi yaa ngi dégg jarbaatam ànd ak moom mu ne ko liñ ma waxoon dara duwul ci dëgg saxal ci lii nga nekk looloo ko may loolu looloo ko may lim am alhamdulillah danaay wax ne suma bàjjan Fatima di Zara du ne moom rek la Cheikh Ibrahima jur waaye lim am daf koo jënd maa ngi fàttaliku benn bés daf maa ma ñëw mu ne Omar fan yëpp maa ngi lay oo gis ma sa yaay bu mu génn kër ga maa ngi ko fekk mi ngi sonn mu ne ma sa yaay bu mu génn kër ga na des ca kër ga loo koy defal na nga ko defal ci biir kër ga ma xool ma ne xoolal soxna sii nii juróom-ñeent fukki at ko am waaye mi ngi xalaat kër càmmiñam yi buñ tas kër yi buñ tas di wax na la nangam di la teg ci yoon maa am benn chauffeur boo xam ne Omar Niang rahmatullahi alayhi damaa xëy rek dàq ko ma wala mu ne ma Omar bu ko dàq bàyyi ko bi bàyyi ko oto bi fa mu toogoon ci néegam daf daan régler lu bëree bëree bëree bëri jigéen jooju exemple la ci bépp jigéen bu ko bëgg a baax ndax yàlla mi doon mayee mbaax démmu mi ngi fi ba léegi jeexut waaye am sa jëkkër yàpp ko yaa ngi dégg mu nekk yow nga nekk benn mu nekk benn jabar dem banga nga xam ne mën a tut ut ñaareel yaa ngi dégg sa doom yi màgg lu ñuy wax sama yaay la ñuy wax sama yaay lay wutal tabaski sama yaay lay yóbbu màkka sama yaay lay nangam su sa baaye waxee yaa ngi dégg nga ànd ak moom baaxut alaaji ibrahima ñas radiallahu anhu bu lew na bi mu ñëwee mbiteen dafa waane mu ne may leen ko mi ngi ñëw jigéen na ko jur de waaye dóor leen mu dee tamit jigéen na ko jur kayenul ma saako bii jigéen na ko jur am sa jëkkër yàpp ko baaxut am sa jëkkër yab ko baaxut am sa jëkkër ëppale ko di ko loo ko defal mbedd mi yëg ko baaxut te sëy li ci nekk paasewul ñaar fukki at nga am résultat paasewul ñaar fukki nga am résultat te doom sëy résultat rek lañ ci bëgg doom ju tere alquran doom ñu am xam doom joo xam ne fu mu nekk sigil ndeyam sigil baayam tey alhamdulilah Ibrahima Cheikh Ibrahima Cheikh Babacar mii su jëlatoon Ibrahima ak jamono jii ñu toll nii képp ku bëgg a sa daara force nga yar sa doom ci daara ndax ñiy jàngale ñi ci raax bokkuñ ci ñi ci raax bokkuñ ci xaalis la ñu ut suñ fayee ko soixante mille suñ gisee soixante cinq mille bàyyi daara ja suñ gisee soixante dix mille bàyyi daara ja suñ gisee quatre vingt dix mille fa lay ñu toxal fa lay ñu toxal léegi nag soo bëggee mucc da ngay fexe ba am doom joo xam ne yaa koy yar ci mën a jàng ak mën a jàngale te fee nii prix daara léegi dem na ba cent cinquante mille te téeméeri xale yoo yore fukki yi ñooy fay ñeneen ñi mënuñoo fay soo buggee fay yàlla wax ak yow ah ngay jaay sama daara ji nag kii am na xel jirim la mënu dara da koy dàq doo ko mën a dàq kon nañ dimbalanteeg ñoom jàppalanteeg ñoom xam ne allahu fi awni al abdi ma daama al abdu fi awni axi jaam feeg mi ngi dimbale moromi jaamam rek yàlla dana ko dimbale Baye Bachirou ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla exemple nga waxtu woo waxee danañ xam ne bàyyi naxu la ba jàng jotee jàng nga bi xam jotee euh, xam nga bi wax jotee man ngaa wax alaaji Abdoulaye mu ne ibnu Cheikh Ibrahim mu ne lu yàqu rek doomi sëriñ see ko yàq bi jàng jotee jàngoo te bu wax jotee nga ne da nga wax te soo waxee wax ay toj-toj te soo waxee ay toj suñ la tontoo nga tontoo ay saaga wala dañ maa bañ fekk bañuñ la yaa bañ sa bopp ndax kër ak ku ca bokk war ngaa fexe la leen ni fal-fal la waaye soo doyloo deret kese doo am dara yow nag alhamdulilah doyloo loolu jullit nga tijaan nga nit ku baax nga nit ku woyof nga yaa ngi dégg yaa ngi dimbalanteeg li sa maam yi daan def ak sa baay yi daan def képp koo xam ne ndax jotaay bii nga ñëw nii sa tool la ndax lii la bàyyi ñaan lii la maamalaaji nekkoon ñii seen maam yi dañoo àndoon ak maamalaaji maamalaaji wane wane gannaaw ñu ànd ak Mawlana Cheikh Ibrahima yaa ngi dégg Cheikh Ibrahima wane gannaaw ñu ànd njaboot gi te ci njaboot gi ci nga bokk ci doom yi ci nga bokk kon ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax di la gërëm di ñaanal Cheikh Ibrahima moom tamit wax dëgg yàlla du mag kër baayam waaye du ci xale dégg Euh, Seydi Aliou daf daan laaj ne kan mooy mukallaf am ñu tontu mooy ku am fukki at am ñu tontu ne mooy ku am ku sax euh, karawi karawi poqutaan wala karawi naq am keneen yëkkati ñu ne mukallaf mooy koo xam ne mën naa joxe dépasse waaw Murtada mu ne mooy ku mën a joxe dépasse paa ne kooku moo wax dëgg waaye timin daara jii ki ko yore wallahi mukallaf la ndax mi ngi ante lu nekk mi ngi góorgóorlu kon ñi ngi gërëm yaa ngi dégg ñi koy jàppale wax dëgg yàlla euh, euh, lu ma yëg kanaa lu ma yëgut waaye lu ma yëg lépp lu ma am ci ay moyens danaa ko ci jàppale ndax jàppale ko mooy jàppale sama bopp ndax ñoo bokk métier mi jàng ak jàngale ak dimbale kuy jàngale ci loolu lañ war a nekk suñ bàyyi ci loolu lañ war a nekk sama bàyyi moo njëkka a tere alquran Medina maa ngi ak lettre yi sëñ maay bi ko bàyyi bindee ne ko déglul boole ko ci ñiy déglu sëñ maay te tey sëñ Maye mooy kilifa ci dëkk bi kon ku mës a tere alquran ci pays bi rek Alaaji Usmaan moo la dégg ba ci yaa ngi dégg mujjam jotaay bu ñuy kii sa baay daana ñëw ci jotaay boobu di fekkee tari mi ndax ci xufaas yi ci la bokkoon kon suñ fi nekkee yaa ngi dégg suñ bàyyi rafetaloon mu jugee fi ñu bàyyi ñu fi soo nekkee ci yoon wu dañuy lay xoolee sa sa sa baay yaa ngi dégg ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla dimbale yal na la yàlla taxawu yal na la yàlla barkeel ñu ngi ndokkeel sa baay tax yi ñu ngi ndokkeel sa mag yi ñu ngi képp ku lay jàppale rawatina xaadim mi yaa ngi dégg yaa moo ko présenté woon ne yaa yàllaa leen boole yaa ngi dégg ci sa baay heure bu jot yaa ngi dégg su ñëwee yaa ngi dégg di jàppalanteeg yow ma xam ko baayam mbokk mu baax la jullit bu baax la di waa kër si Ahmed Bamba yaa ngi dégg gàddaayee dëkkam ñëw tànn dëkk ak Maulana Cheikh Ibrahima bëri na doom ju juddu ci seen kër muy ñoom ñuy ñëpp sama baay moo leen tudd yaa ngi dégg bi fi sama baay new heure bu ñu xewlee ñu ooma di nit ku baax di jullit bu baax di taalibe bu baax loolu alhamdulillah mooy mbaax nit daal su baaxee képp kuy def lu baax rek dana la neex waxut ne amut farfarloo amut nangam man tiijaan la ki nang yu yëpp ay kalam faarix la nit ku baax su baaxee dana mën a jëflanteeg ñu baax ñëpp te Cheikh Ibrahima loolu la bëggoon kon ñi ngi wax ji saf na neex na ni nga ko defee neex na rafet na ñu ngi lay ñaanal yàlla eh, yow suñu amu yal na yàlla guddal sa fan yal na la yàlla may wet yal yàlla may jàmm yal la yàlla sutural wax dëgg yàlla li nga wax su ma xariti bàyyi ngoon amoon na ci yow yaakaar heure bu jot mi ngi diisoog yow mi ngi dugg ak yow xam na ne ëllëg da ngaa war a nekk dara mag ñi noonu lañ baaxe woon jamono ji nag ñun gone yi ak ittey àddina yi mooy suñu xat-xat te bagages yi ci ñoom la nekk ku ñëw jot ci ku demut doo ci jot kon ku ci am mag mu baax moo xam ne mu baax la jege ko mu viré la liñ ko viré woon ku leen sori yow yaay perte ndax ñoom yàlla may na leen lim leen may ba pare te wax dëgg yàlla jegoon na suñ baay xaritam la woon léppam la woon yaay mu defoon ko kilifa kon ñi ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla dimbale yal na la yàlla taxaw ci barke alquran barke makk ak Medina wa akhiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah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 أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين ومصدقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المكان إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا فسادا إلا أصلعت ولا عصيرا إلا يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها الصلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام يا جار المستأجرين ويا أمان الخير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 أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا من كيد كائدينا ومن مكر ماكرنا ومن حسد حاسدينا ومن ظلم ظالمينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا خالق العوالم حل بيننا وبين كل والم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج يا ربنا عجل لنا بالفرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة والحرج وامدد علينا من حماك أمنع سرادق من حل فيه يمنع اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يغفر ولا يضام اللهم إنا نضرب بك في نحور أعدائه ونعوذ بك من شرورهم اللهم أكفناهم بما شاء شئت اللهم أكفناهم بما شئت اللهم أكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطاعنا وعاصنا برحمتك يا أرحم أرحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد وإلى أرواح زوجاته وخلفائه اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح جدنا الحاج عبد الله وإلى جميع أولادهم خاصة مولانا وشيخنا شيخ الإسلام اللهم بلغ ثواب ما قرأناه اتبعنا ونور ما تلونا إلى روح مولانا وشيخنا شيخ الإسلام اللهم بلغ ثواب ما قرعناه ونور ما تلونا إلى روح أخينا سيد أبو بكر آفات اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روحي سرندار باب كرفار اللهم نقي من الخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم ألحق إلى جوار مولانا وشيخنا شيخ الإسلام اللهم ثقل ميزان حسناته اللهم ارحم والده اللهم ارحم والده وأمهاته وإخوانه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وسائر المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله لا إله Aku bi am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak ini yéenay liggéey du si di barahama politique bi am jarama yéen anda ànd ak baay yéenay liggéey du di barahama ñu lendi leen di gërëm ñu ngi di